waa dafay livre boo xam ni dafay raconter fi ma jaar ci àddina depuis bi ma nekkee xale ak lépp lu ma def loolu lañ bëgg a wone mais dañ ci def ba nga xam ni euh, dafay wone lu tax peut-être lépp liñ def ñu mën ko def ndax fi ñu jaar ci ni ñu yare fi ñu jaar ci suñu diine fi ñu jaar ci peut-être xalaat bi ñu am euh, loolu lay wone Euh, de dina ci wane euh, aspect yo xamni ni loolu euh, dañ ko bëggone aussi non seulement wax bind ko mais woné ko motax liggéey bi xawa jeex et El Hadj Ndiaye mi fi nek ni daf ñu ci jàppale parce que ay photo yu yag lañ ci jël vraiment depuis biñu gëné nek xalé ba légui mais photo yoyu du rek juste pour wane photo yi mais pour wane bañ jëriñ la mëna am par exemple benn photo bu bu buñ ci xàmmee mooy ma sama donc lu yooyu tax livre bi parce que dañ bëggoon mu nekk livre boo xam ni rek day wax ni ak mais nan nga mën def ba jaar foofu def lan expliquer que mën nga def et loolu dafa ni sa yar am importance mais sa njaboot am importance ñi lay importance ak yow li nga fi nga bëgg a yegg donc livre bi loolu la essayé wone mu servir nag de modèle ci xale yeeg jeune génération bi IRSF day fondation d'utilité publique à but non lucratif cela veut dire que lépp lu ñuy def euh, loo xam ni mën na indi ay fonds bénéfice boobu dañ koy dugalaat ci biir IRSF mais livre bi li suñ ko jaayee euh, dañu bëgg xaalis boobu ñu ci am ñu def ko ci anglais parce que ñu bëri tey su ngeen ko gisee bokkoon nañ ci réunion bi de manière virtuelle mais dañu bëgg a xam lan la dañu ko bëgg a utiliser ñoom ñoo laaj ñoom ñoo ko laaj ñun dañ ko bëgg euh, français la dañ bëgg nga defal ñu anglais su fekkee nag loolu après des na dañ koy dugalaat ci biir fondation